ñi nga xam ne ni ñooy saytu bu nekkee dogal yi ñu jël ci wàllum yoon dëppoo na ak charte ndewu réew mi la ñu bëgg saytu dogal bi nga xam ne ni moom la ñu jël gannaaw bi nga xam ne ni neenal nañu candidature bu Karim Wade ñeel kalaame bu Thierno Alassane Sall waa PDS daw wutali pencum ndaw réew mi ngir ñu taxawal ab commission d'enquête ni leen ko seen règlement intérieur mais ab commission bi war a saytu ab mbirum ger bi ñuy tudd conseil constitutionnel rawatina ñaar ci ñoom Cheikh Tidiane Koulibaly ak Cheikh Ndiaye te ñoom ñaar yëpp ku nekk am lu ëpp ñaar fukki at ci seen i liggéey yi balaa ñoo dem conseil constitutionnel pencum ndaw réew mi war a àddu ci ña nga xam ne ni ñoom ñooy saytu seen liggéey yi ak luwaay yu ñu fay voté naam mbir mi nuroog nag lu ñuy baral waaye bu ñu tëralee commission d'enquête bi saa yu ñu demee ba information judiciaire jib ci seen liggéey yi day daal di jeex ci sa bu ñu sukkandikoo ci article 48 bu seen règlement intérieur te ci waxtu boobee ñuy wéyal processus électoral bi te sax li ko mën a gàntal lu néew la bokk na ci mu am ci candidat yi kenn ki nga xam ne ni dafa génn àdduna waaye tamit conseil constitutionnel mën naa sàkku ci njiitu réew mi gannaaw bu mu nemmee ko ay gàllankoor ngir ñu mën a tuxal bés bu ñu war a amal élection bi bu weesoo loolu bu ñu sukkandikoo ci constitution bu réewum Sénégal kenn mënul teggi ndombal tànk ñu fare ca conseil constitutionnel fii ak seeni mandat jeexagul gannaaw bi nga xam ne ni sàkku nañ ñu tëral ab commission d'enquête fas yéenew ñoo bàyyi benn yoon mbir mi dañ koo bëgg topp boo wone luy ñuul ci soow mi